Ndeye Sarr dafa melni yag nga ci kër gi. wa yag na fi trop. Mhm. yag na tey Bébé Bass di célébrer tay anniversaire am tey boo ñu wax kan moy Bébé Bass tay wa moy Bébé Bass moy ki ki ñew fekk ma ak sama papa te mhm. taxalewu kan mhm. ma mom ben yoon. parce que man bi may fréquenté pap bo bébé ñëwagul. mais suma ma ci kërëm ba mën fi lépp moom moo ma yaatal. ndax kër jigéen a ko yore tey mën nañu bëgg pap ba buñ ko gisé di daanu mais mom buñu xajal duñ dug kërëm man lu nek ci man moko ci def yere dal moo ma njëkk a tegal naturel ak yeneen yo xamni ni sax xeyna dina neex wax du neex wax euh, bu amé lu mu lay wax dala koy wax bu ci paré pare na ci. mo ma jënd sama ordonnance da mo na jëkkër di sey suma gëné wax sa damay parce que ki li ma defalee mun mako wax dama koy bàyyi yalla ak yoonte bi ak sëriñ Babacar ndax mom la doylo mais moom mii gën ci sama lepp fay naa la. tey Bébé Bass mooy célébrer anniversaire am tey eh, yéen yéen ni ci kër gi di liggéey ak moom Bébé Bass mooy kan. Hmm, Bébé Bass moom lu ma bëgg a wax ci moom ah bëri na baax na yaatu na bëgg na nit man sama mag laa fi remplacé waaye gis nga ñu mu jur ak ñi ko jural ñëpp la yemale. ñi mu jur ak ñi ñu ko jural ñëpp la yemale Bébé baax na yaatu na amul benn problème. tey lan nga ñëw mën a fàttali sa diggante ak moom loo xam ne saa yoo ko fàttali ko rek sa xol tooy ci fu ngeen jaar yow ak moom. ah bëri na bëri na man mënuma laa wax ne bébé temps la may fay waaw saa yu jógee rek day tëbb xaas rek jox la su lay jox day tëbb rek jox la am nga kooku moom ki la bëgg dong moo la ko munal waaw. jàppewul leen comme ay liggéeykat ci kër gi mais di leen jàppee comme ay rakk. waaw kay daf ñoo jàppee comme ñu mbokk ak ndey ax baay. waaw amul benn problème wax dëgg fa yàlla baax na pap baax na doomam bi sax dafa baax Mouhamed sooy ñibbi danaan bul dem bul dem xam nga loolu baax doo nga ko mun. Euh, tey seen jabar moo xewle euh, une mère de famille hein, la koy tuddee euh, Bébas tey jour anniversaire waaw muy mbégte mbégte xam nga nag man personnellement personnellement bébé sama xarit la ba àddina bi yëpp wax ko personnellement parce que bébé man bi ma pap jëlee pare indi ma daf ma daf ma daf ma taxawu def ma ni pap ma ni pap xam nga bëgguma lool nak di sama confident nak ñuy waxtaan ma nag mom sax lu jëkkëram dul yëk xam nga muy kenn nak ci man kon kooku anniversaire bu ñëwé dama kay wax mu dundu mu dundu mu dundu parce que dundam amna ndariñ té nak gis nga euh bo bëggé sa jëkër da ngay dem ba ku ko bëgg nga bëgg ko beebaas dafa dem non lay doxé Bébé Bass bis bu la xamé ni yow tay tay tay tay bëgg nga pap xol sa ben sa ben jukko mm-hmm. da lay bëgg par force nak bëgg mbëggeel gi bëgg kon koku ñun amuñu fayam mm-hmm. morceau bi mérito nako ko bébé yeneen ak yeneen gi ñew inshallah rabbi Mouhamed yalla na ci leneen ak leneen ak top ba mom mu mag sax di len téral yow ak bayam nak pap Diouf Bébé Bass nañ leen bàyyi nii xam nañ ko tay di célébrer son anniversaire wa ma ko koy souhaiter nak di ko birthday to you wa lu mu dund doyul mm-hmm. Bébé Bass hmm, doomu Alaaji Bass hmm. yaay Mouhamed kooku euh, su ma dee wax ci moom du ma fi jóge ndax moom xam na ma xam naa yàlla xam na bébé baas mën nañuy wax ba quatre heures du matin bébé baas mën wax ba cinq heures matin àdduna sépp ba ci waa këram am ay audio yoo xamante ni ay ñoom jaari baas ay ñoom waranka su ma la ko doon tegal ñooñu nga xamante ne ay sëram ñoo bokk moom ndey baay man ak moom dafa jéggi sax nag ay chéri ak euh, frère ak frère danoo mel ni ku bokk ndey ak baay. li ma bëgg wax ci moom lépp sax xawma ko ndax moom sama xarit la di sama jigéen fu ma wooyee ne ma sama góor ma ne ko sama jigéen àdduna si yëpp xam loolu. Bébé Bass bu sañoon suy lekk buy añ ma teew bu sañoon buy reer gis ma damay nekk fu sori mu woo ne ma Cheikh foo nekk ñu ngi waaj a añ ñëwal foo nekk ñu ngi waaj a reer ñëwul loolu nag ku la koy defal ndax loolu mu may defal nag am naa ko mais terme bi mu koy defee mhm. ah ak façon bi mu koy defee moo tax ma xam ne kii daal nit ku baax la daal Bébé baas daal yal na yàlla defal ko jàmm yàlla yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko lu mu am rek du sens ci moom mérite la mhm. jëkkëram wax na ma dem démb ci kër Xaadim Diouf ma koy nuyu de mun mu ma sëñ Mbacke mu ne mu ne ma way yu ma way Bébé baas dama bëgg nit ñi xam ni loolu lu ma war la rek ma def ko mhm. nag am na ñoo xamante am na lu leen war ta duñ ko def. kon dal maa ngi ñaan ci yàlla yalla yalla yagal leen ah euh, yàlla may leen guddu fan ak wér ñu dem bay raamaan daal. Ah, sum salminima lamɗo so jam tum won e eh, min ko do mi gollata kabiri ñandi allah addi mi mi no he jam mi no ha feewi e debbo o kadi patron o ko debbo moƴƴo debbo mbo ala probléme kabiri ñande min mi ari do ha hande mi heɓani ko gasimmi he muɗum sora jam he ɓubtu mi ñaagui noon allah ya allah ohor mbo jam he cellal danda mo musiba par que ko debbo moƴƴo ko debbo joguiɗo ɓernde lamde ɓernde juulɗo mi ñaagui noon ya allah ɓeydindi men ɗo danda men musiba ohora men ɗo men battinede ohorambo ko waɗa barke ohorambo jiidi waɗandi barke ɓeɓe balte vraiment nit ko bahla waaw kadi nit ko ko jafele si rewmi e. ñun ñi di sécurité am tey ñu jàppee ñu comme ni sécurité si gàll bi dañu jàppee comme doomu gàll bi nii. vraiment lu mu am bokk ak ñun nit ku baax la te vraiment dañu ñaan yàlla yalla gudd fan. waaw lu mu soxla àdduna kat yàlla na ko yàlla may yaa barki Seydina Mohamed. Mhm. man de tamit sama bopp laa xam. Mhm. waaye maa ngi ni si gàll bi te bi ma dalee nekk fi ba léegi musuma am lii lu ma nakkat si gàll bi. Mhm. te ma bëgg su ma leen laajee rek c'est facilement pour mu am ko. vraiment moom nit ku baax la moom ak jëkkëram yëpp. Pape tamit ne ku baax la ku am si ñun soxla bu ko waxee dina la fajal sa soxla facilement no problème